laay laay laay laay Maxtaar laay Alassane ak Seyni. dimension spirituelle maam Seydina Limamou Laye. Euh, dimension spirituelle bi ñun tuuti nañu pour wax ci mën nañu rek am peut-être yëg-yëg bu fort bu ñu nee xam nga dafa diis tey ci Sénégal euh, diis na sax ci ñenn ñi nga xam ne ci wàllu dégg-dégg ñu ne leen Seydina Limamou alayhi salaatu wa salaam moo la rasul bàyyi laay mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa am na ñoo xam ne bu buñ ko déggee dañuy am xel ñaar mais ñi nga xam ne ñu ngay gëstu di jàng di gis alxuraan xool li ci biir. wax almahdiw xam nañ ni que Baye Laye moo la rasul benn bi si des moo di ne ci wàllu yëkk-yëkk ci wàllu éducation ci wàllu diine ci wàllu euh, forme de vie ak ak même hygiène de vie ku xool ni nga xam ne noonu la ahlu laayen di fonctionner war nga xam ni Baye Laye am na lu mu digle loo xam ne ci suñu borom la digle la la jóge donc li ci important mooy au-delà de digle yëpp yëg-yëg bi ak gëm bi ak pas-pas bi Baye Laye kaka gëm mu teewal la moom amul maas waaw géej gi randul ma ma ma sànc. ça veut tout dire euh, yàgg nañu gis ay misaal sunu maam ba baax bi di Seydi Abdoulaye Thiaw Laye bi mu fi jógee yàggul bis bi mu fi jógee ku ne gis na li xew ci euh, géej dellu na euh, loolu firnde la ci ak mbir yu bare kenn mënut a wax lépp bàyyi lay nag ay mbiram dafa ànd ak sutura ànd ak màgg lu màgg màggal te kilifa diine yi ak kër diine yi ak mag ñi xam nañu ko donc moom nag dafa boole ñëpp. àndandoo ñep mu nek lo xew lo xamni xewna xew na ak medine xew fi ci Ndakaar depuis demb ba légui discours yi dañu remarquer né dañuy alerter. ou la bât alerte ci ban sens. ci jeunesse bi réseaux sociaux et comportement jeunesse Wa wa waaw alerte bi baxna je pense que thème ren bi ça parle de l'extrémisme religieux qui lu ni mel mais au delà li li important ci alerte bi je pense que baxna ñu alerter jeunes yi conscientiser leen mais nous aussi nous alerter conscientiser ñi parce que je yi attitude bu ñu avons am résidu conséquence madame, ñi madame, ay jëf nous les di donc l'important, c'est vrai que je yi war nañu déglu plus d'éducation mais kan moo war éduquer kan mooy éduquer nan la éduquer Nous éduquer Si définir quand on parle de la pyramide de Laswell ñuy wax ne nit ay besoin la mais besoin yooyu mooy indi attitude mooy indi comportement xool leen jeune bi nga xam ni yar nañ ko ci diine mais ki ñu yar ci diine xam nga fu ñu tàmbalee biir biiram dañ koy sol xelam dal ñu jàngal ko diine après jàngal ko tarbiyu ak la ci des ki nga xam ni amul loolu yëpp ñu bàyyi ko boppam kooku dafa ñàkk yar wala victime la laaj bi foofu la nekk bu ñu xoolee ndax kii nga xam ni dañ ko yarul ñu ne yaruwul mais lu tax yaruñu ko am na ñan ñoo ko waroon yar est-ce que ñi ko waroon yar amoon nañ temps wu yar ko lan moo tax léegi nit ñi ñu naan xale yi yarootuñu mais na ñi leen di yar ñaar la mooy jur yi est-ce que tal nañ ko benn la lu tax taluñu ko dëkk bi conséquence ni ñuy gérer dëkk bi kan mooy yar maas mbooloo mii yëpp kan moo leen di yar mbooloo Baay Laay Baay Laay moo leen yar waaw mbooloo Sénégal kan moo leen di yar amna na ku jiite Sénégal amna ñu jité Sénégal est-ce que li ñu waron def def nañ ko question la. responsabilité état bi euh, euh état moy premier responsable lu xew fi ci Sénégal nguur moy premier responsable. légui nak baxna c'est bien beau de dire aux gens il faut que nit ñi yaru il faut que nangam nangam mais ñi nga xamni ñoy jité est-ce que modèle lañu est-ce que sen comportement wane nañu ñom yaru nañu ñom Sen bop bu fekkee ni par exemple da nga wara def ben mandat ñaar nga ne damay forcer def ñet est-ce que yow yaru nga. léegi bu jeunes yi réagir ñu ne non kooku jeunes yi dañu war a yaru mais ki def ni nga xam ne defuwul nag moom yaru na wala yaruwul loolu aussi laaj la. parce que mois de mars bi yéen a ñëpp. mars yéen a ñëpp bu ñu doxalee dëgg Sénégal ne si jàmm bu ñu doxalul dëgg nag ah dina xaw a jaxasoo waaw nañ nañ doxal dëgg rek bu ñu doxalee dëgg rek jeunes yi yaru. maa ngi lay jaajëfal jaajëf jaajëf.